ci bésu tey ajjuma juróomi fan ci weeru juin deux mille vingt ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen virologique yi nga xam ne moom laa leen di waaja limal ci junni ak juróom-ñaari téeméeri test yi ñu def téeméer ak fanweer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñenti ka contact ak yi ka communautaire juróom benn ci Touba ñeent ci Popenguine ñett ci parcel aseni ñett ci Guédiawaye ñaar ci Malika benn ci Cité keur khadim benn ci achlem Grand Yoff benn ci Benn Tali benn ci Pikine benn ci Hann benn ci Wakam benn ci Jëppal benn ci Kër Mbay Fall benn ci Rufisque benn ci Thiès benn ci Bunkiling ak benn ci Mbacké téeméer ak fukk ak ñeent ci malaat yi ñu hospitalisé woon wër nañu bësu tey fukk ak juróom ci suñu malaat yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bi Sénégal njëkk am wàññi nañu ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk juróomi cas yoo xam ne testé nañ leen positif ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañ si